dem laalane ci ab xare da ngay wut ak fital wut xepp wut baramin ab ëkk de dalay ren kenn mënu koo déjjati ci ay weex wala ci ay baaraam. parti démocratique sénégalais PDS waneti boppam si landerneau politique local bi ñu jàppoon ni parti bi lim yàgg toog demul élection jeexal la lim wane Touba Sam du loolu. mbooloo mu takku boole kook ay notable chef religieux ñëwoon teewee rencontre bi fa Ibrahima Seck doon amal di jeune cadre bokk ci parti bi di milité foofee ci Touba Sam waa koñ ba nag jóg nañu pour jàppale seen doom li ko tàmbalee ci kilifa diine yi ak tamit jigéen ñi profité également exposé seen ay problèmes. kon mbooloo mi maa ngi leen xamal ne Serigne Cheikh mii fekk Serigne Ibrahima mii ànd nañ fi ñu war a jaar fépp jaar nañ fa ndax la ci njëkk mooy chef du mooy buntab dëkk bi jaar nañ fa ba ñu fa jógee jaar nañ ci borom dëkk bi. boole nañu ak moom léegi këram lañu julee timis mu ne lépp loo xam ni daal sëñ bi namm na ko ci bëgg gi ci dëkk bi te muy loo xam ne ñaawut yëmut ñaaw waaye dafa rafet nee na loola ànd na ci ak moom lu mu ci bëgg ma ngi cay ñaan lu mu ci mën jàpp yi dana def loola nee na mi ngi doole ñaani képp ko yàlla dogal it bëgg gi mu bëgg it nga xam ko nanga ko ko bëggalee. nag jigéen jigéen jigéen jigéen mbootaay yi Touba Sam ñoo ngi nii seen ginnaaw lu ngeen bëgg lañ bëgg. lu ngeen nekk ñu jàppale leen ci. nañu yàlla dimbali nag ba buñ ca àggee président Macky Sall man fee jóge keneen toog réew mi yàlla nañu ko yàlla defal ci kattanu suñu borom. parti bi kenn desul woon li ko tàmbalee si tête de liste bi di Cheikh Mbacke Bara Dolly ànd ak femme yi ak mbooleem investi si liste bi ñëw nag fekk si fa mbooloo mu takku yëkkati ay kàddu soññiwaat lañu def ñoom waa parti bi leen wax ne ni ngeen ko daan defee ndax Touba moom ñëpp xam nañ seen diggante ak président Abdoulaye Wade ñëpp xam nañ seen diggante ak parti démocratique sénégalais kon nañ ci taxaw yàlla defal ñu ci ndam ndax yéen ngi tudd Karim sànq des na ñaari élection ci diggante yi élection Karim daal di ñëw kon dañuy fexe gañe bi gañe bi ci topp 2024 ñu gañe jox Karim Wade réew mi incha allah. ki joxoon conseil bi ki joxoon conseil bi da doon dundee conseil bi mais dundalut conseil bi loolu nag lan lañ ko mën a rectifier mooy ki nga xamante ni moom la maître Abdoulaye Wade tànn Karim Meïssa Wade tànn ko muy sëñ Cheikh Mbacké Bara la 23 bu ko kenn tay nañ dem jox ko suñuy carte fal ko président conseil départemental. président Karim Wade woolu ko teg ko suñu kanam moom seen Cheikh Bara Doli Mbacké kenn ku ne xam na ni mu nekk tête de liste conseil départemental bi kon suñu xel dafay daal di dal foofu ndax koo xam ne dañ laa woolu jël la teg la suñu kanam ah xam ngeen ne bu gañee conseil départemental bi jigéen ñi daañu ci gis seen bopp jeunes yi daañu ci gis seen bopp. ñëpp daañu ci gis seen bopp. Euh, ku ñëwee dañ laa dee donc tey xalif bi lim ñu wax rassuré nañu et que pare nañ pour gën a firndeel suñu taxawaay fii ci sàmm incha allah su neexee yàlla donc ñu ngi ñu ngi sant bu baax suñu engagement politique mooy servir servir bu baax a baax servir le peuple parce que daf Emmanuel Kant daf ko wax benn borom xam-xam bu baax mu ni. nit maqaama bi gën a si moom mooy muy muy muy jariñ ay mbokkam. sa cëppaa ndaw la ki nga xamante ni moom mooy Serigne Cheikh Mbacke Bara Dolly nekkat wax ji du bari li mu bëgg mooy na woon fawoon xammee nanu mbokk mi na ñëpp jël def si enveloppe dugal si ay kàddoom ngir ñu mën a am ndam loolee day firndeel ni bu ñu sukkandikoo si ay kàddoom diggante Touba ak lay Wade dafa yàgg. bu jël bi nga xamante ne mooy bulletin bu mboq bi. nga xamante ne moo am gubu dugub bi xam ngeen ko ngeen jël ko lem ko ba mu jekk dugal ko ci enveloppe bu leen ko kole mais dugal leen ko ci biir enveloppe bi dugal ko ci biir urne bi boobaa ba bu booba votel ngeen président Abdoulaye Wade votel ngeen Karim Wade votel ngeen ma mais votel ngeen Ibrahima Seck ngir mu mën a nekk conseil départemental pour man leen a teewal ca conseil départemental ba ngir ëllëg lu fa génn waa Saam man caa gis seen bopp.